mais mais Lamine. damaa waxul dara li mu dara waaye xam nga ko ma sonal waaye ab waxuma dara ah réaction à chaud laa bàyyi ci boppam. réaction à chaud lan la da nga mer man. meruma def ma dara bàyyi ma nii rek. mais mais mais da nga jëlee ko boppam. waaw moom la man bàyyi la ndeysaan. waaw dëgg Lamine sama xarit la ndeysaan Elmo moom suma xarit la dëgg la d'accord. li saa bëri. ma la xeebu ma la. sama doom yaay nga eh. dëgg la. bul bëre. lim bëre tey Sa Thiès bëre na bëre cuune. cela veut dire Eumeu Sène da koo magum. lim ko lim ko magee rek loolu la ko wan. ngir yàlla bu leen ko téyeloo boppam. pour loolu rek wan na ne lii la war a bëre. yaa ngi dégg Sa Thiès ñëw premier inst d'accord naa round d'observation d'observation mais. boo ñëwaatee. jërëjëf. ñu gis di saa combat bi du def du jógee su une bi dem ba def huit minutes. daanu na daanu na rek garaawul du ma ci wax leen. mais est-ce que li ngeen bi ci biir combat bi. fi saa kees egg ëmb seen wala fi ëmb seen egg saa kees. lan moo doon wax ndeysaan. dëgg la. waaw dëgg la. dëgg la parce que doo fi ne. dëgg la dëgg la sam wax na dëgg kaay doxantu na li ma am ñu ma xool lii may làmb sa kees waaw gars yi ñu ngi noonu ñu ne seen mbër stratégie bëree bi ñu ko changé loo moo gën a yàq làmbam ndax mbër bu mun ta xaar bul ko téye di ko xaar loo quoi béy la ko mu bëree ji quoi ndax Salif kenn du xam-xam ne mënut a ko maaw diifi Salif ku bëree béy mu ñëw accès la dal sa kaw bëree daan waaw mais bu xaar bi lim xaar tey dafa yàgg quoi xaar bi xaar et puis bëgg am seen laxasoo si ndigli am na seen poids lu doon am na seen laxasoo ndigli teel a après ngay dóor foofu da nga war a fetaxu pour noo rëccee ndax boobu jege na saako yi mën naa jeg saako yi en même temps mais xam boo waree ñàkk loo def na quoi. mais est-ce que liir na am na seen tey ci combat ah, liir na ko mooy xam nga lambu lambu lambu maanaam euh, tegtal yu bari ak ay euh, conseils yu bari day dem ba ba day jaxase sa xel. xaarloo bu yàgg bi rek la loolu rek waaw bu yàgg bi la rek waaw. ndigal mais li sax gis bëri ndigal. yàlla xam ma sax bi laa mënu ma wax bi laa ndigal na man dara dara yàlla baax na. waruñu du bàyyi na xaaral. waaw jaar ba gis fii bu ko bàyyi jig na la moom ndamam yëpp ci loolu ko may. booy ngaay ba nga ni comme daan dañ ne Sa Thiès dina daan mu ñëw di ko déglu mag kay boo ko dégloo mu jox lañ jogoonal mais ban erreur la Sa Thiès def ci biir làmb ji warutoon a bëreeg Eumeu Sène daa waroon na xeex sori ko Eumeu Sène mbërantaan la dëgg la xam nga ne bu la jàppee làmb ji jeex dëgg te bu fàtte lii la ko booy ñaa daane woon waaw ci ndigg li waaw ci ndigg li ak sooy yoon ci ndigg li dem ak moom parce que da ko saa Eumeu Sène da koo nag da koo jëkk mos mu baaj mu indi ko ci kanam ba mu kanamee fu mu am na liggéey ci combat bi est-ce que xool na Eumeu Sène ci biir làmb ji parce que premier souffle Eumeu Sène moo njëkk a gën bu Sa Thiès Sa Thiès dafa yéeg ci làmb ji nekkut ci làmb ji ku xamoon Sa Thiès ci arñeem ci bëritam ci fitam xam ne tey Sa Thiès dafa déglu dég toru toru toru ay conseil ay conseil moo ñoo ko rey xaar ko xaaral xaaral. xaaral bëre ko yàq. dafa xaar dafa xaar dafa xaar. naan bu ma defee nii bu ma defee nii bu ma defee nii. Euh, xeexu guma ba la ko def. comme ni mu daan def. ndam yëpp ci la ko am. ndam yëpp ci la ko am abu. ndax waaye nag euh, gàcce nga laama. waaye nag dama da ko waroon ubbil buntu yu bari tey. ndax tafaatin Tine moog magam ji tey. waaw Modou moog Siteu waaye tey waaye na defaru jiwaat. na defaru jiwaat. na defaru jiwaat. loolay la na defaru jiwaat. jërëjëf. te bëri bii ku amul doole doo ko daan. Ah, mais père ci côté Sa Thiès dañoo gis ni Eumeu Sène kon kon ni Sa Thiès waxee woon gis nañ ne Eumeu Sène dafa dugg géej waaye dugg fa duggaat fa. tey ñoom a yàkkoon ne am chance que ni euh, Sa Thiès naa rectifier Eumeu Sène mais ñu gis ni Sa Thiès ni mu bëree est ce que normalement noonu la waroon a bëree par rapport. man ba bëree Sa man li ma ci mos di xam mooy bu at bi songee daa euh, sifflé mu song la. mu attaqué la. tey nag dañ koo xaarloo. xëy na xaar boobu rek la def erreur. mais dafa dàqu la xeex Eumeu Sène dàqu koo bëree. ëpp ko rapidité. te loolu yëpp feeñ na te boo dee xool Sa Thiès ni mu daan souvent rapidité la leen di ëpp. daan leen. Hmm. bi muy daan Zarko rapidité la. bi muy daan Siteu. bi muy daan euh, rëg-rëg bu mujj bi rek. gis nga ni mu bëree. Hmm. bi muy daan Moussa yooyu yëpp rapidité lay ñëw bëree bëreem. Hmm. tey nag rapidité boobu daf ko téye wonewu ko. ci biir waaye aussi il avait devant lui nag un homme un homme qui est devenu un jeune. Eumeu Sène xale bu ndaw la doon tey daan jël bu rëy. mais présence Balla Gaye est-ce que amu tamit lu mu def si moom. est rëpp bi nga xamante ne Eumeu Sène def na ko est que euh, Sa Thiès waroon na ko bàyyi mu jugaat euh, pour ñu continuer bëre bi est-ce que mënu ko woon a jeexal foofu. waaw la il faut am temps pour mun foofu ëmm rëpp bi du rëpp dara. loolu yàgg na ci làmb. empêché wu ko mu bëre. Franc mi ñëw samp ndëpp. est-ce que jaadu na ki daanu bëri man damaa yaakaar ne ki war a sampal. Mm. man yaakaar naa ne Sa la war parce que Sa bu daanoon du bëri Franc. Mm-hmm. Sa bu daanoon Modou Lo lay laaj. Mm-hmm. Eumeu Sène moo daan moo bëgg a yàq Pikine Fadam moo bëgg a yàq Pikine ak sa coono ay seetaan lañu. waaw mais ñu wax moom. père est-ce que présence su Balla Gaye tamit amul lu mu def euh, Sa Thiès est-ce que tamit du ko gën a kii pression par rapport ak Balla bu toog. présence su Balla Gaye. Mm-hmm. ndax yàqalul Sa Thiès dara non Sa c'est la première fois mu daanu te Balla yàgg naa teew Sa Thiès loolu mën naa am xëy peut-être ci li ko ëmm seen daanoon moom non non ëmm Sa au niveau la du xale bu ndaw noonu. yàgg naa bëre yàgg naa am ay ndam. tey defet moo ñëw bu defet ñëwee nag il faut juum am. d'accord mais dafa mel ni Eumeu seen dafa wane ni moom amul benn xale bu ko ëpp doole ci làmb ji parce que tey doole dafa feeñ ci làmb ji ak hygiène de vie bi muy wax ne moom dafa nekk ci moom parce que boo xoolee li mu ma li mu màggee xale yi ci ay âge dafa bari. mais bu ñu jàppantee tey doole dafa wala daf leen wan ne dama am doole tey maa ngi doog am. Eumeu Sène bi mu daanee dafa ne damaa bari doole. loolu la damaa bari doole. daan magewuma leen lu bari dama leen a jiitu ci làmb loolu mu doole la na technique. Mhm. doole rek doon xalaat. tey jii wone na ni bokkul ak ñi mu maaseel jamono ah. ñoom ñëpp moo leen ëpp doole. d'accord ah am na doole man je croyais que bi day gaaw. parce que dama yaakaaroon Sathiès da day def dama daan def nga xam ne bu ko defee foofu ñoom ñaar il faut mu am kenn ku mën a daan ou bien Sathiès def erreur ci rentrée bi ëmma daan ko ou bien Sathiès def ay maninam mais loolu yëpp amu ci Sathiès dafa xaar xaar ëmma jàpp lees daan ko jël bu leer amul benn problème. est ko xaarloo Sa Thiès. ah non peut-être erreur la ndaxte mbër du bàyyi maninam. mbër du bàyyi maninam nam daan bëree bu njëkk bu ko bëree woon xëy na mën na am yàlla may ko dara. mais de tout façon il avait devant lui nag un un roc. grand champion. grand lutteur et puis bu leen fàtte ah Eumeu Sène. man je me rappelle ah bi may nekk ci rajo Walfadjri ah ay 2001 ah Eumeu Sène. joge du 2001 ay 99 même. ma seen jógee championnat d'Afrique. jël médaille. donc Eumeu yàgg na ci làmb tu sais que Eumeu a fait au moins vingt six ans de carrière ah. ëpp na ko. Eumeu a fait vingt six Eumeu bi muy daan USA yàgg na ay deux mille dix huit à quatre vingt dix huit quatre vingt dix sept yooyu la ba tey jii mu nekk mu mel ni ah li koy mooy yem. Ah. yaru bëgg li ngay def. am discipline ci sa yaram ci sa nekkin sa dudd sa lekk ak sa façon te loolu mooy moo feeñ tey ëmma wone na ni ah il est clean ah d'accord il est clean il est mais ba tey dafa am dernière question waaw peut-être waaw il faut nga may ñu tur ci bala Gaye ak kii seen seen kii bi Balla Gaye tafaati waaw mais bala may ñëw si foofu gis ñu Eumeu seen dama la jëloon ci combat Modou Lo ak ki nga xam te ne moom mooy euh, Ama Baldé wala Modou Lo Boy Niang ba tey nga am loo ma wax ci ki nga xamante ni moom mooy ci Boy Niang wax ma ko ci Ama Baldé gis nañ tey la nga waxoon dafa mel ni moo ñëwaat benn Pikine bu retrouvé wu présence Boy Niang pendant avant et après loolu nan ko gisee ci li nga xamante ne moom mooy ci euh, Eumeu Sène dëkku làmb la amul benn moment dans la vie ci wàllu euh, bëre bu Pikine bokkul ci làmb ci jamonoy Double Less y avait ñoom Pape Diop Mbaye Guèye Pape Diop bi fi ñu jógee Mansour Diop dafa ñëw Balla Gaye 2 Balla Gaye 1 après hmm. ah wax naa la ko léegi ñu ñoom après à un moment y a Tyson Balla Gaye 2 hmm. ah ñoom Jules Balde yii Pikine musul bañ a bokk ci làmb hmm. Pikine dafa yàgg a bokk ci làmb léegi la ñu nekk fii di indi ay problème ci seen biir parce que nit ñi ñoo changé jikko yi changé xale yi di yàq ah, di yàq ay relation di tasaare Pikine mais ñoomu neen na nag ñoo ko yàq mais bu nu bu nu juboowee doon benn lu nu bëgg ci làmb mën nañ koo am Pikine mu juboo rek ñu doon benn lu nu bëgg ci làmb mën nañ koo am Tafatine Balla Gaye Tafatine Balla Gaye nag tey gis li ma gis mooy Balla waa Balla bëgg na ko harcelé napp ko mm-hmm. Tafa mel ni kuy bañ Tafa na doole. am na doole li ma gis ci tafaam mi am na doole. Ah. mais Balla daa mën a bëri. daa mën la. mel na ni na yaram maa ngi leen di gërëm. waaye <laughs> ngi dégg. bi combat moom a Gueye yàqoo daa toog cinq ans bëriwul. waaw. yaa ngi dégg. mu jugoon ci ay Zallo ay Xaadim Njaay yooyu. ay Sulay Top. ay Sulay Top. Balla Gaye ak Lac de Guiers di yëngal. dëgg la. ñooñu ñoo ko dugal ci làmb ñoo ko ci làmb. mais doon cinq ans yi bëriwul yëpp. waaw seen mu ngi entraîné escape bless. dunia yàgg na fa dunia. fa la doon entraîné. musculation. di ko def régulièrement. yaa ngi dégg Sa Thiès ak Eumeu dañoo tolloo taay waaw Eumeu Sène moytu muy bëre ku tolloog moom taay ba pare mu leer ko ni kooku day ñëw mu war laa recevoir recevoir bi maa ngi koy wax boobu ba léegi mais gars xam xamuñu lu mu demee waaw nga ko keroog de Eumeu Sène buy bëri ci militaire bi neexul daan dëgg bu lay xool di bëri yow neexul daan parce que bëri du ko bett waaw te loolu xam na ko waaw du ko bett Sa Thiès ndaanaan da leen daan ci seen pied seen ci seen ci seen seen manque concentration la leen daanee ndaanaan yi dëgg la ndam si yàlla Moussa Dioum yàlla ko yàlla yërëm moo dàq bëri ci àdduna bi mu ku la ko Sa Thiès daan tonnerre bi mu mbilleeg laaw la ko Sa Thiès daan Eumeu Sène xeex naag Sa Thiès laaw tey waaye fi mu feree ne kanam fi mu feree ne yaram fa la ko feree ne waaw da ko cadre rek non dégg waxuma la cadre de Eumeu Sène a koy dóor ay laaw mais cadre yaramam bougé wu Eumeu deful bi Sa defee nii <laughs> yàlla lay mais yow mais mais mais fan nga tegoon ni sa euh, Eumeu Sène day Sa Thiès facilement. waaw parce que dama xam ne dama Sa Thiès athlète la. waaw te ñëw la. Eumeu Sène buy ñëw moo la man Eumeu Sène waxuma benn nit mais trois personnes bu ñu ñëwandoo man tiituma dafa am recevoir recevoir mooy xaar. naa ko sept fois tubaab dëggoon ko mooy xaar attaque. Ah. da ko mën. mais Sa Thiès tey daa ñëw xaar. waaw Sa Thiès xaar na mais jeexalee wu xaar. bi amul lu ko yàqal Sa Thiès. non non Sa Thiès bu ñëwoon xaw ko conseillé mais li mu ko conseillé baax na. dëgg Sa benn coup mooy yàq làmbam mooy laaw bi mu dóor. bu ñëwoon dal ci ko Eumeu Sène làmb jooju noonu duñ ko fàtte fii ak 4 ndax bëri ndax xeetu jël bi mu waroon daanu bu xaar woon. bu xaar woon ay mbot a fay am ay prise ay capte tën yooyoo fay am mais pourtant mbot bi avant ama seen di ko dajale Sa Thiès mënoon na mbot foofu mbot tàqali koo génn ci waaw léegi li tax mënu mbot tàqali koo mooy Sa Thiès ama seen takk ko ci tànk da koo takk ci ree da koo eto ci ree ba pare bloqué ko ama seen Sa Thiès pied gauche la teg ama seen teg pied droit seen bëre day juwaat loo saa yu ëmb seen duggee ci garde bi da koy mën a tuuse génnaat bu fekkoon Sa Thiès day xeex normal da koy mën a jam arrêt gauche. laa yaa xam làmb du jege ëmb seen du jege mais Sa Thiès amul xeex réglementaire laaw lay xeex moo tax ëmb seen da koy percé ci droite bi dóor ko laaw droite dóor ko laaw gauche. waaw mais li ko ëmb seen di dóor laaw yëpp mu ngi koy xool ci cadre bi. Eumeu Sène a koy xool ci cadre bi Sa nag bi mu mbindee benn erreur rek la def mooy bi mu dóoree laaw Eumeu Sène gis xataanam ci def ndox ku bëri ci suuf gën koo jege sigi sigi moom ko ñibbi làmb ji jeex tey tey tey tey saa ci ci làmb tey adversaire am ñan la war a mën a bëri làmb Eumeu Sène a na bëree ne du tudd kenn maa ngi dégg gars yi naan Eumeu Sène mën na bëre ku ne. Franc ko bëgg. Eumeu Sène mën na bëre ku ne. non man xeebu na benn adversaire mais Eumeu Sène mën na bëre ku nekk. te Sa Thiès am ci làmb. waaw Sa mën na bëre ku ne parce que ay moroom Sa moo ci gën a néew defet de. Sa Thiès tey waaw Sa Thiès de. Sa Thiès par expérience la ko Eumeu Sène daanee de ak doole. kopp doole ci ñoom ci combat bi ñoom ñaar saa ñu demee ci côté droit Eumeu Sène moo ko fa yëpp doole foofu mais bu dee côté gauche Eumeu Sène moom ci kaw si ngeen di si mënu ko fa ab doole ndax bëri bu maîtriser la Eumeu fi muy ñàkkee doole mooy bu sëggee jàpp sa tànk di xool suuf si moom foofu lay ñàkkee doole parce que yaramam bëggul bëre boobu mais boo leen di xoolante étonte wala ngeen takkante wala ngeen di kolajante wala ngeen roofante ay gargal mënoo ko fa ab doole parce que bëri bu mu fooyee la weccitu bëri la loolu waaw loolu loolu loolu loolu. xeex bi saa mënu woon sax ci xeex bi bu xeexoon nga yaakaar doo ab dominé Eumeu Sène. Sa Thiès boo bëggee dëgg-dëgg kaawoon na ñaari yoon ci làmb ji Eumeu Sène di suuf bàyyiwul xel. ci lu waaw bagaar bagaar non organisé Eumeu Sène ko dàq ci àdduna. ay mooy bagaar non organisé. mais mais mais dogoon ak Eumeu Sène naa mel ni mooy li mu yor Pikine de saa yu Pikine demee mooy. waaw Eumeu a waaw dégg nga làmb day fay. ama seen mbër yi fi nekk yëpp nekk bi man xale bu ndaw laa nekk ama seen di ma dugal ci otoom deux portes di panne ay essence di ma jox bidon ne ma dama jël essence may dem di ñëw yaa ngi muy ànd ak Omar Fall ay Mamoussé su bëri woon ba pare ama seen fekkee naa fu muy doxee dox amul oto di dox kon xam ne yàgg na ah, loolu mu sol tërë yi magan a déy bu weex ak kiset indi bu noir ñuy ànd man ak moom yaa ngi muy bëree contact pare sama papa jox yaa ngi dégg dama xam qualité bëre bi nekk ci moom Eumeu seen boo ko daanul sax ci premier minute pour nga daan ko day nekk problème parce que bu nekkee en l'aise daan ko di yomb sànq deuxième souffle bu bàyyi ñëw. waaw kay Eumeu Sène bu nekkee deuxième souffle laa mel ne commandé bu nekkee en l'aise ci bëre mën na teg ordinateur nii di calculer Pikine ne moo si dàq bëre wala d'accord loolu non déggoo li ma la wax kenn du ëmb seen laa la wax a bëre mais Pikine bëre ay poste ku nekk sa poste ay waay bëre dafa am centre droit avec centre gauche am latéral droite am latéral gauche am milieu terrain oh. comme tey daa ñëw bëre el eh, centre ku koy bëree pikin non el centre boo gisee boo ñaa da koy bëree parce que boo ñaa bëree ñoo da lay tax yow oh, oh. aj garde ba jege la yaa ngi dégg ama lan lay bëri boo ko ama attaque lay bëri ama seen mooy bëri li poste <laughs> lu muy bëree waaw moo jaaxal ñëpp nag barke sëriñ ay waay loolu <laughs>